ndax gis nañ yàgg nga yàgg na yu mel noonu yàgg na xam naa benn ñu tëj boobu tuuti dugg ci benn euh, kii bu ndaw euh, sa lan moo doxoon sa diggante ak nga xam ma di Antoine Félix Diome gaa yaa ngi naan sa relation ak moom. waaw jërëjëf xam nga euh, damay wax toujours ne Antoine Diome politicien la man heure bu ma xëyee bu ma gisee koo xam ne mën naa koo ñoddi pour mu ñëw ci wetu Ousmane Sonko daa koy def. su gisee ne nit ki kat taxawaayam am na solo am na lu mën a apporter Macky wala am na lu mu ko yàqal moom xalaatam ci dox doxinam mooy fexee la tout pour xëcc kooku mu ànd ak Macky mais nag am na ñu ko fi jiitu jëmmi mag Sall ci boppam foog naa ne jamono yi la rek mais mësta toog 6 mois te woowum xam nga ku président di woo mënoo ko wuyu am ministre mënu ko woo muyu la mais nag woo na ma téléphone bi eh, élection yu jub si te damay wax toujour ne képp ku nekk ci opposition bi état mosulaa jéem a woo xamal ne li ngay def defut effet nit bu fekkee li ngay def dafa def effet sa adversaire da lay soxla ci wetam loolu euh, lu ñu nungu la kenn mënu koo bañ woo na ma téléphone ñu waxtaan ci élection yi euh, parce que boobu euh, élection locale yi non élection législative yi mm-hmm. moo jub si mu woo ma téléphone ne ma damaa bëgg ñu waxtaan ci sécurité élection yi comme yéen a ngi tuubaa te coow leeg jafe-jafe yu bari na fa te yàgg nga ci terrain bi ma bëggoon xam sa expérience mu ne ko ah loolu du ma ko bañ parce que nag réew mi ñoo ko bokk. moom Antoine waaw te it waxtaanee réew mi wala ma jox la xalaat bi ma am pour ñu teg élection yi ci yoon su fekkee réew mi laa gëm loolu waruma la ko bañal ñu waxtaan euh, gisee mu laaj ma sama xalaat ma wax ko mu laaj ma nan la ñuy def ba élection yi am jàmm aussi ma wax ko sama xalaat ci loolu ñu seqaat leneen nag muy sëñ Saliou. ndax euh, loo ko mën a waxal xam ne xaritu sëñ Saliou la woon yàgg naa wéet ak sëñ bi man ma ma xam ko boobu mi ngi nekk substitut procureur jàllo yaat nekk xale bu ndaw di doog a génn mu xes pecc nopp yu gudd lool dégg nga euh, mu daan ñëw ci sëñ Saliou ayu bis gu ne man ma nekkoon ci daaray ci daaray sëñ saaliw nekkoon ci biir kees yi xamee ko ca bi ñu waxtaanee ci loolu ba pare nag aussi euh, ñaan na ma ma ñëw jàppale président Macky Sall ma ne ko loolu ku ma ko mën a digal ci àdduna bi ma bañ ndax digaloo ma luy sàmm sama ngor digaloo ma luy sàmm sama diine mënu mu ne weex na ba ñëpp ne tàll mu xëy naan ñuul na loolu sama deret mayu ko te yàlla defal na ma autonomie nag maa ngi liggéey xiifuma maruma soxla su ma am maa koy lijjanti sama bopp bay lijjanti waalo yeneen soxla taraanga jooju ma sun borom defal nag may liggéey di soqeeku comme ñëpp kon awma njëg kenn mënu maa dugal ci lu ma neexul loo ma gis ma necca rek lu ma neex lay doon te ku ne xam na ne nag am naa opportunité dem fa magi démb ya nekk di wax ab safaan ñu leen di ñamal kenn ëpp mu opportunité boobu am naa fit mën naa xeex te damay wax sama xalaat waaye nag li ma gëm mooy si baaxul lii ma yàlla defal dala ko war a defal defal ko keneen te yàlla wàcc na bépp sénégalais buy ñaan yàlla dara dañ laa war a jàpp dóor la ba nga sedd guy yàlla li mu waroon a maye lépp may nañu ko yàlla du maye cere pepp la lay may yàlla loo mënta am la lay may mooy ab taw jox la pepp nga dem ji soo jiyee boo amee sa pepp def cere ak wala nga def laax waaye yàlla du jël cere di ko maye yàlla engrais lay maye te yàlla may nañu lépp pour ku nekk am kër gu rafet am ñeenti soxna di lekk ay ganaar di war oto bu rafet xéewal googoo ngi fi mais juróom fukki nit tënkuñu ak yenn complice kilifa diine yi yenn yi ànd ak ak magi démb yi ak grand électeurs yi jël réew mi séqu ko di ko paacoo boo réussiwut loola doo ca ànd looloo tax man may xeex mais leneen taxu may xeex man bu doon sama bopp a tax may xeex lii ñëw ginnaaw bu yàgg a yàgg ndax appelu junne burul appelu junne jot naa ko ci président ak Sall mais man gëwuma loolu Ousmane Sonko mii may jàppale aussi du jëmmam laay jàppale su ma ko romboon fii muy xeex man naa ko bañ a àtte mais xam-xam bi mu yor vision bi mu yor ak dëggu gi nekk ci moom looloo tax ma koy jàppale Ousmane Sonko yorul suñuy kër ñun ba ñuy tabaxi kër booba Ousmane Sonko nga impo ba ñuy am métier di war ay oto yu cher ay oto yu 30 millions Ousmane Sonko ngi impôt comprendre nga ba ñuy seere ay entreprise Ousmane Sonko ngi impôt mais dafa indi dëgg te ku indi dëgg ñu ànd ak yow ñun dëgg ñu bàcc yoonu murit dëgg boole sëñ Tuubaa ak sunuy maam keneen ku indi dëgg nu dëgg ja mel dañuy ànd ak yow ca dëgg jooja Ousmane Sonko mënuñ koo diaboliser parce que ñi ànd ak moom duñ ay sagari nit am na ñu ànd ak moom ñoo xam ne dañoo fees dell ñi ministre yi mel noonu la leen yàlla melal ci ay xéwal ñu ànd ak moom ndax dëgg kon nag euh, koo xam ne dafa ànd ak yow te yaakaarut ci yow ab dépasse yaakaarut ci yow dara dëgg la lay wax te ñun nag ñi ànd ak Ousmane Sonko pour ñu wax ko dëgg lu jafe la ndax dox gu muy dox ci dëgg waaye heure bu wàcceew yoon ñu wax ko ko. profité Touba gis nañ temps yi ay gone yu yu fi jug ko wax rek ñu lijjanti nga dem kaso loolu yow yow lan nga ci gis lan nga ci xalaat. waaw loolu li ma ci xalaat mooy euh, euh, parce que loolu fan yii yëpp maa ngi ci doon wax mais Antoine Diome dafa xamut liñ ko jox. <laughs> c'est de l'intérieur moo yor réew mi de. waaw ne xamul fu muy taxaw <laughs> parce que ministre de l'intérieur ni mu toll. pour man waroo jaxasoo ak ku amul xam-xam wala nit ku nitewut li ko dal lépp nag jaxasoo gone yi yu wut amuñu xam-xam te amuñ benn wàccuwaay ci dëkk bi moo ko teg damaa xam ne ministre de l'intérieur man li ma ca xamoon wala état wala ministre de la justice pouvoir bi nga yor nga koy xeexe ay suufi jàmbur ak yooyu laa ci xam. waaye yow ñaari gone yoo xam ne ñoo bokk dëkk bi kii ànd ak Ousmane Sonko kii ànd ak Macky Sall kii ànd ak Macky Sall wax dara ki ànd ak usmaan Sonko mu fayu ñu dem woo commissaire mu jël si la looloo fi am de ñun ñii de bi fi Ousmane Sonko di ñëw Ousmane Sonko moo téléphone ne ma dinaa jaar 28 bi ko gone yi déggee ñëw sama bundu kër fees fa del ne dañuy sànni ñu sifaay leen sifaay yu dagan ba ndaw bàyyi fa seeni oto parce que nag euh, man am na loo xam ne du ko nangu man euh, lijjantiwuma kenn mais nag sama sama sama fief moom euh, ku fa ñëw. di ma jéem a attaqué moom damay jëflante ak yow ba yoon ñëw ca lañ ñëw def la ñuy def ñu sifaay leen fa ba ndaw foog naa ne euh, man bokk naa ci man man maay responsable politique bi nga xam ne man la sëñ Muntaxa masawoo ne ma Macky Sall dafay ñëw suba nangam nangam wax ma ca ba foog naa ne cinq yi gisatoo Macky Sall ñëw tubaa kenn di ci sa kanam Macky ñëw Touba kenn di ko yuuxoo parce que ñun loolu li ma ci jublu woon mooy morceau yu ruus lañ doon yor te dañoo bokk ci dëkk bi te président Abdoulaye mi fi jóge woon moo ne woon ku am la naqare yoral lu ruus te loolu moo gënoon a silvissé lii lii ko dal dem na ba léegi mënatut a dox bëccëg guddi lay dox buy ñëw ay garde koram fa leen di bàyyi làqatu loolu nag nit ñi yoroon morceau yu ruus mu taxaw waxtaan ak ñoom ñu wax leen seen i moo gënoon ba ma sëñ mun taxaa woowee wax ma ca la ma cay wax ba léegi gisatoo ko man ndax yow bokkoon nga ci ñi nga xam te ni 24 heures ah, avant ci la sëy seen wala gars yi daan wàcc sa buntu kër jeena te teewul bu fi jaaree ñu yóbbante koy dàllam ba ma ca sëñ ba waxee lam ca bëgg ba léegi gisatoo lu dëgg kon bu fi Ousmane Sonko di ñëw mu am wàccuwaay ci dëkk bi parce que 28 mooy promo Touba 28 ci sama loxo la ne te man programme Ousmane Sonko laay jàppale moom laa gëm kon nag ku fa jaar di wax waxu Macky Sall te Ousmane Sonko war faa ñëw da ngay tooñ ñun bàyyee nañ leen ak seen lépp li sëñ bi wax ci dëkk bi ci lool lañuy dox mais suñu leader nag bu fiy ñëw nan nu ko bàyyee parce que nag man lu lu yàggul bi ñu liberee libéré Moustapha Lo Junior rek sëñ mu Mountakha daf ma woo woo ko ñu toog am lu ñu waxtaanee lu yàgg yàgg yàgg yàgg kon man sëñ bi yitte ji mu am ci dëkk bi ak taxawaay bi mu am ci dëkk bi man kenn gënuma koo xam ndax amul benn politicien bu mu mujj ci kanam sëñ Mountakha te la ma wax dégg naa ko na ngeen def bu ngeen mënta ñàkk politique na ngeen def politique autrement te maa ngi leen di woo ci gën a jàpp ci liggéeyub sëriñ bi te ngeen dimbali ndaw ñi gis nga ne ba ñu fa jógee yóbbu nañu ay don yu bari ca euh, mag bu euh, fii Mbàkke bërkaati démb yóbbu nañ cinquante ventilo ci mag bu Jurbel yóbbu nañ vingt ventilo ci mag bu Njaareem ci suñuy propre moyen bopp ak ay nit ñoo xam ne yëkkati nañ seen alal def ci ñu ciy gërëm nag mu Lo Senior mi jiite Mouwahiboul Akyas nga xam ne eh, ci wàllu liggéeyal Serigne Touba moom ak eh, joxe ay don ak dimbali ndaw ñi kenn mënu ko ci ku ko ci woo sawar na ci ñu lëkkaloo ceeg moom am liggéey bu am solo luñ ci liggéey ci ndigalul nag sëñ Mountakha kon ñun xam nañu li sëñ bi bëgg ci dëkk bi ak li fi bañ te ñun produit yoonu morit lañ lu Serigne Touba amul bëgguñu ko mais nag sëriñ bi tënkuñu ci suñuy position politique ndax sëñ Mountakha bu ne woon bàyyil politique tey bu subaa moo Ousmane Sonko ne ko bàyyi naa la hmm? waaw mais damaa toog ci kanamu sëñ Mountakha xam lam tere xam la mu bàyyi xam fam ko yemale lam ca bëgg lépp dinañ ko def. mais nag li ñuy wax ci dëkk bi yenn kii demewul noonu. non non ah man de sëñ bi waxuma ko cadre yooyu moom dugg ci waaye xam naa ne bu ma woon ma ñëw mu ne ma na nga bàyyi politique ca saasa laa koy bax waaye lam ma digal ak lam ma tere. xam naa ko la ma baaxle soññ na ma ci la nga xam ne xaw naa caa yaafuus dàgg na ma ci te ca loolu laa fas yéenee nekk ndax politique bi nag xeexal sa réew ak yooyu yëpp am na solo waaye nag ñun euh, dañuy damay wax chaque jour ne ñun euh, Serigne Touba daf ne kiraamam kiraamatu xatiyat yi boo demee ci ax boobu ma nga fa kiraamatu xatiyat yi boobu ñun ñun dañ cee bokk ndax mbindum Sëñ Touba ne na kiraamam mooy am mbindam mbindam nag xasida yi la ak seex si cheikh si nga xam ne ñii ay ndaanaan lañ woon ñii doonoon leneen mu jël leen def leen mu leen def kon loola loxooma bu kenn wëlbati saay wax nag naan yàllaa bind sëñ Tuubaa bind cheikh si yàlla moo ñu bind moo nu wërsëgal moo nuy rey ci lu dul sikk comme ni ko sëñ son bi waxee ci xuratul ayni fii tam yesi bax di faraidil ni waaye nag bi nu yàlla bindee ba pare teg ñu sëñ Tuubaa dafa jël am leneen loo xam ne da koo def ci ñun ñu wuute ca ak nit ña muy def def bi mu def ci ñun kon ñun lu métti métti métti métti ci géttu sëñ Tuubaa rek la ñuy sowe teyit euh, dëgg bii ak xettali sa réew ak ngëm-ngëm bii ñu ànd di ci dox loolu yoonu murit bañ a ko sos te bañ googu dañ koo gis ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu ko boppam ñoroon waxatuñ ko dafa joxe boppam ngir nit ñi waaye barke alxuraanu karim du gën a gore sénégalais yi fan yi ci ginnaaw gisoon nañ fi gars yi def ay ñaari délégation ñiy dem ci Sëriñ Muntaxa naan naan Antoine day def lii ñeen ñi ñoom itam dem di démentir ci Touba ku ne gis na ne bëri na ay ndaw ñu bëri ñoo xam ne ni gars yi ñu ngi leen denc ci kaso bi xam naa di siyaar bu baax au passage Serigne Assane Mbacke ak ñeen ak ñeen ñoom fa nekkal waaw di nuyu Serigne Assane Mbacke xalif général kullu détenu mooy seen xalifa li nga loolu de maa ngi koy doog a dégg waaw mooy seen xalifa général kullu détenu maa ngi koy ñaanal di ko jox wàcc waayam te di wax ne euh, fi mu nekk du palaasam nañ ko bàyyi en même temps defut loo xam ne dañ koy ñaanal sëñ Assane ci otoom la nekk ñu fekk ko fa jàpp ko ci ndigalul Antoine Diome tëj ko fa cinq mois am na ko fa bientôt mu am mais balaa maa ñëwaat sax set bis bu set ngeen naan Antoine mais Antoine Antoine moom moom du joxe xam nga man damaa toog ak Antoine mhm. daf woo mu woo ma téléphone ay yoon yoon kon man bu ma waxee te ma toog ak moom woo ma ay yoonu yoon pour bàyyiloo ma li ma nekk pour ñëw ànd ak moom man bu ma waxee ci Antoine war nañ maa mën a déglu ndax lu dul boppam rek digg na ma ko pour ma bàyyi sonkoo ñëw ànd ak moom ma lànk hmm? wallaay na warabul kaaba ah eh, itam bala maa ñëwaat ci sëñ Assane nañ dem ci Abdou Sylla ah, Abdou Sylla ah, démb la am ci kaso bi ak ci manifestation yoo xam ne fii la jóge dem ci manifestation yi xewoon dakaar te ñin jàppandooloon Abdou Sylla ñëpp dañ leen a bàyyi police centrale Abdou Sylla ñibbisi gone Antoine yi ne fii woowaat Antoine Abdou Sylla police su Dakar woo ko ne ko kaay jël sa téléphone mu ñëwaat jël si ko ñu ne ko raaw boobaak léegi am na fa at. mais gone Antoine yi xanaa kon ñoom am nañ doole ci dëkk bi de gone Antoine yi. non amuñu doole. Ah, mais xam ne ku ñu wax ñu ne ñoo ko denc. amuñu doole xam nga tey am na ñetti nit ñoo xam ne wala juróom yu ma xam yoo xam ne. ñoom ñoo wax ak ñoom ci groupe bi whatsapp wax ju ndaw ñoo woo Antoine Antoine woo commissaire jëmmi Antoine moo xamul li mu yor maanaam intérieur du ay caaxaan soo ko yoree waroo ànd ak gone yu niil wala gone yu nilaar ñu lay dugal ci naka sudul noonu te Antoine bu dee dafa jóg ngir man xam naa ne Antoine defaralut Macky boppam lay defaral mais dafa jóg reyaale boppam reyaale Macky parce que lii mu séq ak Touba Macky ak Touba dañu am règlement de compte mu waroon a ñëw fóot loolu mu set mais dafa ñëw gën koo yàq dafa ñëw gën a teengal euh, li fi nekk. mais mais wax ji est-ce que du yéen ñi nekkoon ci waa Pastef ay jamono Antoine jëkk ji ñoo gone yooyu dem fekki Antoine. xam nga yooyu man lañ doon fréquenté. bu leen Antoine xamee ci man la leen xamee. am na ñoo xam nee ñoo taxaw ma nga xam Antoine. man euh, man Antoine woo na téléphone di ma di jéem a ñëw ci moom lu yàgg loolu mënul sotti à ci la fortaatu parce que bu ma amoon du soxla ñooñu. mais ñàkk maa tax mu dem fori ñooñu pour ñu koy waxal naka sudul noonu ak di ko yàqa di ko wax ñu yàq ay deri mais ñun loolu fàbbiwuñu man Antoine ndax ma woo benn yoon ñaari yoon toog ak man lu xam wax na ko pour ma bàyyi usmaan Sonko ñëw ànd ak moom ma lànk yow nan nga mën a fekke Moustapha Diouf Lambaye fii fam ñëw ne da nga yooxoo Ousmane Sonko nga jëflante fa ak ña fa ne dem police woo la te li li li gën a garaaw mooy police boo jotee gone Antoine yi bu police woo la police mooy doon plaignant bi hmm. waaw man inspecteur bi ma doon entendre dane ma waaw yow dangeen ne ci dëkk bi yor ay fital di tiire nit ñi di wër di agressé nit ñi ma ne ko sëñ bi waxal loo xam inspecteur inspecteur sax amagut amatul kii am léegi euh, kii nu mu am na neneen nu am liet naa la tudd am na neneen enquêteurs yi am na neneen ñu tudd léegi euh, bon ma ne ko del wax loo xam parce que fañ doon fe euh, jëflante fekke woo ko dañ laa wax en même temps ki ñu tuumaal indi ñu fi daa war a toog mu wax ñu wax mais police wartu doon peleñaa bi. mais ñooñu est-ce que boobu ñu ngi woon. kay ñoo ñooñu pelente di. ba pare te jaaruñu fa. élection lan lañ lan lan lan lañ wax maanaam kay euh, maanaam violence élection kay loolu dañ koo admissier ci mbiru Babacar Seye ba léegi kay kun ci def dara da war a muñ. mais plein élection nga ñëw di yooxoo nit jëflanteeg moom ñu sifaay la nga dem woo police yow te yow yaa ñëw këram ñun kay ñoo waroon def violation de domicile ñun ñoo waroon a plainte ba pare ñoom ñi ñu plainte jaaruñu fa police doon plaignant bi ñu yóbbu ñu fa téye ñu fa biñ ñu àttee nañu defu leen dara ndax dañoo bëggoon a téye ba élection yi jàll ndax dañoo bëggoon sàcc élection yi waaye dañoo xamut ne ñun waa Touba ñu yónni comme nag waa Touba ñu yónni jàpp nañu waa ñëwal seen bopp taxaw ci bureau yi ba ñoom responsable yi ñëw ñoo dem vote ji te ñun ñu bàyyi woon ñu ci urne yi moo gënoon a sedd ndax bi ñu jàppee waa Touba ci ñoo génnal seen bopp téye élection yi ban fa jógee Babacar Sarr mii di porte parole Pastef gone gu xees googu mesre felentu ko fii lu ñu waxante lu ñàkk fayda ci groupe whatsapp ba mu demee ñu tëj ko un mois lañ ko tëj ci ñaari ñu waxante groupe whatsapp xanaa nga woo ñaar ñëpp ci ñaari do dongay sëñ Tuubaa yoo xam ne ñoo bokk dëkk bi di ndaw yaakaar sëñ Tuubaa nga dugg seen diggante ne la cokkalaasal kee bu tontoo ma yóbbu ko xam nga boo demee Dakar force occulte la ñuy wax la ñuy traquer nit ñi di leen jàpp soo demee Casamance rébellion lañ leen di jàppe mais fii nag këpptal pour Antoine Diome la ñuy jàppe ndawi Touba waaw haine bi ndaw ñi amoon ak Macky nde haine bi nekkoon ci diggante Macky sàll ak ak ak ak ak waa Touba euh, Antoine Diome dafa ñëw gën koo yokk kon Macky Sall mi ngi dugg fu nekk pour règlement de compte yi mu fi am mu fay ko ci jàmm mais nag Antoine yow it jógal li nga def Touba jógal nga fexe maslaak ñoom mu deñ su fi mag Macky jógee boo demul CPI nga delluwaat ci tribunal yi man a attewaat nekk ci sa jàmm gone yi nga fi am liñ la dugal du noonu liñ lay conseillé baaxut ndax da ngaa faru ay gone yoo xam ne amuñu xam-xam amuñu ay xalaat yu baax te nag dëkk bi dañ dañu leen di abal fu ñu fanaan booy for wala ngay ànd da ngay wut koo xam ne boo nee ko càpp ñu xam ne am nga am nga laadum waaye ci dëkk bi maanaam mën naa ne ay xari pël-pël nga fi am moo tax fañ la jëmale ak fañ lay dugal sab der rek lay yàq amul la benn njariñ xuloo sab xuloo ca àll ba ñu duma la nga daw ca sa baay Antoine ne ko wax la kii damaa duma li nga war di laaj mooy loo def ban duma la te lépp lu ñu defoon ak ñoom nag bu ñu ñëwee defaat ko ñu defaat te lañ leen defoon na leer ku ñu fekk 28 di ñu jabolise ñu jaaraat ak yow fan jaar duñ ko ba ñun kaso wàññiwuñu ñun ca daara ja lañ nekkoon ba toll nii ñu tawtul te daara ak kaso nag doon ñaar de ma wax la ko te kaso am na lu mu dàqe daara ndax kaso dangay am salle de bain dañ lay garder fépp nag doo génn te boole ci da ngay jàng te kaso doo jàng kon daanaka mën naa ne la kaso dàq ku fa am fukki at ak juróom nga ñëw ne ko danga koy nappe kaso yaa ngi sànni sa woy ñun Ousmane Sonko xupp taxut ñu ànd ak moom ñu bàyyi ko xëpp taxut ñu bàyyi ko boo rendee buñ jeyee lu mu yàgg-yàgg di nga dee fekk ñu fa ñun ak Ousmane Sonko. soow la ak suukar boole tuur wala boole naan fanwuñu ko ci dara mais li mu yor moo set te ba Sénégal de Sénégal ba léegi dan fee nekk Ousmane Sonko fi ne liggéeykat yi chef d'entreprise yi nga xam dañuy liggéey xool sa yorin wu salte wi ñu yore port bi yorin wu salte wi wi ñu yore réew mi économie bi ñooñu ñoo gën a sonn ci Macky Sall jóge fi yéen ñiy liggéey yéen nga xam dañu ngi ci wàllu entrepreneuriat ñu ñu bari si ko foofu rek xam naa ngir jeexal waa mooy li ma la wax xam nga tey port bi boo ci duggee sa yaram day daw da ngay jënd oto 4 million nga indi ko ci port bi ñu ne la day fay 4 million waaw xam nga Nigéria ñoo ñu gën a développé fuuf tey for de Escape bi nga xam ne exemple 6 million lay jar fii soo demee foofu 4 millions 500 lay jar te dañ koy importer ñu koy importer te bu fekkee ne oto bi day fay dara ñu defaat ko ci dëkk bi ñoom ñoo ñu gën a développé dëkk waaye li nit ñi fay day dafa delluwut ci askan bi yaa ngi dégg. ba pare ci côté délégation yeeg vraiment administration bi ni ko defee faalewuñ kenn da ngay ñëw di wax ak yow ñu mel ni ëkk duñu la faale bala ngaa xam ne Sénégal du dëkk nga dem ci pays démocratie yi lu mel ni ay Corée wala ay Amérique man bu ma demee Amérique bu ma demee Corée wala ma dem France wala ma tukki ba ñëw su ma ñëwaatee damay mel lu siburu ndax li may gis ak li ma doon gis fële xam nga Trump li mu wax ne Sénégal Afrique réew nangam la du ma sax jaar mm-hmm. barki sëñ Tuubaa boo xoolee ci poté ci côté suñ dirigeant yi la la la la Poutine di wax mais lu am am la bëgguñu réew mi gëmuñu réew mi Ousmane Sonko liggéeykat yee ko gën a bëgg ndax xam nañ ne li ñuy daj ak di ko jànkonteel kenn mënu laax lan la gis nga ñi nga xam ne amuñu dara xiif bokk ci réew mi di ay gor war a jot seen wàll ci réew mi war a am dund bu baax ñooñu 1 pour cent lañ ci ñu bëgg Ousmane Sonko mais chef chef d'entreprise yi ak liggéeykat yi ñoo gën a bëgg Ousmane Sonko fuuf ndax xam na ne fekk état banque ak gouvernement bi nit du réussir xam nga France wala Corée wala yeneen réew yi da ngay góorgóorlu état xam ne am nga expérience ñu ñëw ñu financé la jàppale la mais état du Sénégal li mu gën a sawar étranger bu ñëw ñu rey doomu Sénégal ki waroon a concurrencer ak yow yow mii doomu étranger ñu jàppale la gis nañ ko fi ay yoon yoon gis nañ diggante Cheikh Sey Magu Lamine Sey borom jës bu bu neex bi ni ko Total def moo moom di prom ni ko Touba Ewel ni ko Total def ñu nungu ko Touba Ewel yi mu yoroon ñu foqati euh, ñu foqati soroor yi def ko Total daaneel ko moom total a ko rey kii baarataal autoroute ilaatu autoroute kii bii APS bi biñ koy def dañ na ko lii péage la moom moo liggéeyoon euh, tëli bi tëli tëli bi jógee Pikine dugg biir ville mais xam nga luñ ko xañe procès bi dañ na ko bii simple la ti bi bii pain la pain mooy lan ñeenti weñ ñu ñuy tegale gàll ko ngay fay xool la tappale yooyu lu tee ñu jël seen doomu réew dooleel ko parce que baarataal def na fi ay tëli yu bari Thiès boo fa demee deux voies yooyu moo ko def taxawaay bu rafet boobu tey bu ñu ko dooleeloon mais dañuy jël français bi ñëw mu jox leen bonus de signature mooy bu marché bi dee cinquante milliards gañe gi ma ko gañe moo tax jëlal trois milliards yi.